Levant, levant boy li ma def keroog moo ko defaree parce que yaa ngi dégg li ma lay tegal nih. am job boo xam ne bu ñu ko seexee ak yow dafa war rafet ngay bàyyi sa affaire de yooyu noonu ngay dawal sama diggante ak yow fay laa toog di la xaar bay bëgg a dee gisuma la nga nekk si taan bi di naaw say naaw rek yaa may dégg foofu laa yem nag mais eh, bàyyi fal mënoo maa bàyyee tegal lu metti man keroog damaa amoon ab ray mu dee doon rey mais xam nga ni yow man sa liggéey dama ci gaaw bàyyi mooy loolu noonu amul seeral sa liggéey dañ ci danga koy dóor mu wàcc bàyyi benn yoon mu jeex. fils sama job ak yow dama bëgg mu set bëgguma lu ko yàq parce yaa ngi dégg li ma lay tegal nii. man danga maa xamee lu koy yàq bàyyi. waaw mais dama lay tegal rek. man toujours luy defar laay def. tegal café jox ñu foofu ñaari kaas. sëñ Ibrahima ña kontaan ci yow. waaw alhamdulilah keroog ci réunion ba. Mm. di kontaan sa intervention. maire bëgg gis nga tamit cër ba la fa meer jox macha allah ndax dafa am fu mu la teg ndax xam na ni quartier yépp fii ci Thiès sa quartier moo fi ëpp nit te xam na ni boo ko jàppalee li ñu bëgg dinañ ko am ci élection yi élection yi nag li ci des bareetul deux mois moo ci des joxoon na la trente terrain nee na pour nga jaay ko dolliwaat na la quinze terrain muy quarante cinq terrain nee na boo ko jëlee nee na nga téye ko def ko sa fond politique nee na bu xale mag mer bu ndaw mer bu góor mer bu jigéen mer noo mën a def ba quartier bi kontaan ba ñu gis seen bopp ba ñu am élection yi nanga nga ko def. leer na ma ne sa café gi man waxuma loolu sax man temps yi moom liggéey bi dafa metti quoi damay tëdd bàyyi di bëgg a dee sama yaram bi fu nekkay metti ah waaye liggéey te moom temps yi sa kafe gi da nga kaa yàq yow war ngaa xoolaat sa bopp yow. sa bopp ngan bi maa ngi la booy. ama ah, lay wax rek. Ah, yaa fi man maa yunus café baay. yaa commencé beew sa kaas yi feesee nii gi ah, xormbet gi. lii wala sa jabar te maa ndax kat daan nañu gañe nag waaye bii lañ bëgg mu gën a yokk ñu gañe ndax bii ni nañoo bëgg gañe gi gën a leer nuñ ko daan def duble ko. 15 yaa ngi nii allah li duma ni guléet ndax maanaam quartier bi dama ko donn ci duma muy sama mam nekk sama baay nekk ko tey ma ñëw nekk ko 30 terrain yi sama bi 30 terrain yi mu jaay 29 benn boobu nag danaa ko jël boole ko ak quinze yi muy 16 bu soobee yàlla bu lépp jaree daal askan bi dinañ kontaan ndax maanaam mag ñi dinaa fexe ba ñu am ay carte d'identité xale yi dinaa fexe ñi ñu am ay carte d'identité su ko defee ndax Sénégal bëri na ay ñoo xamante ni xale yi jeunesse bi ñoom ñëpp daanaka ay liggéeykat lañu su ma fexee nag ba nga xamante ni lii jot naa ko dina ci mën politique dina ci mën défar askan wi ba nga xamantene ne du mer mag du mer ndax mag ñepp dañu nekk ci avec yi ñi nekk ci ay marché bi ñi nekk ci lu ne su ko defee ñooñu maanaam daanaka bo leen euh, joxé xaaliss dañuy gëna a mën liggéey dañuy mën tek euh, teg xam fi ñuy tek seen tànk ki mooy yaq loxom ci bopam da nga yaq sa loxo yow te kafe gu bon gi Euh, et puis yéen ñaar nii si nii laa la xamee sa peinture laa xamee mais ni leen waxee nii. eh li ñuy corsé sa yoon nekku si. booy cempal sa cemp rek bàyyi ñu gérer lan la yow nu mu demee nii. mënoo dugal sa yoon ne yow bàyyi doo réglé doo gérer sa café gii ta nga bàyyi ñu bàyyi voilà. xam nga naa sa café jeex na ma ah, naan leen seen café garaaw. libéré ko ñu jug yoon waaye. café gu bon gi. waaw yéen naanu yéen a xam. Ah, baax na. xale yi tamit jeunesse bi tamit ñoom it bëgg nañu liggéey mais amuñu ku leen jàppale tey bu yàlla defee ma jàppale leen ci loolu ñoom it dinañ commencé seeni activité di liggéey normal ndax boo xool loolu man lañ ci yaakaar te rôle bi nga xamante ne doon naa ko muy rôle chef de quartier dinaa ko doxe ba mu jeex tàkk dara du ci lunt dara du ci ami caaxaan mais naka mu yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu baax a baax alhamdulilah. alhamdulilah mais yënga na ñoo gagné élection yi. yee. ñu ngeen dooree Moussa Gueye dama cee kontaan. yi nga suñu élection yi. bugguma kenn di ci wax waxu duma. ndax dañoo dem élection def campagne waa Njéema wootee ñu. booy booy dama booy déglu déglu ma eh eh, eh. bëgg booy biy déglu quoi. yéen am ngeen doole gàcce ngalaama koñ bi bëgg nañ leen askan bi naw na leen. loolu la yàlla loo tax ngeen gagné deux cent waay loolu kay dara ñëw ci faal. loolu la yàlla def nag. jaajëf waay loolu kay amul solo. lenn laa lay wax dama woote campagne bu mag njéemaa njéemaa ànd ak man ci campagne bi ma dem élection ñu votel ma ma gagné coow la amoon bisu élection yi nag du ñun monsieur Guèye moo fa indi ay nerveem bëgg a jaxase carte gi ñun ñu gagné élection yi gañaay gu leer nañ waa njéemaa gépp duñ félicité. kon nag bul taxaw fii naa ma damaa sàcc ay élection ok yooyu yëpp amul problème. waaw mais mon frère. waaw ah, mais tàllumaay. booy yéen si loo nekk. Ah, maa ngi nii rek maa ngi si jàmm baay. booy lu am daf ah, maa ngi koñ bi rek. mais gëj nga université de. waaw foofu moom gëj naa moom def ma ko jigéen ba léegi delluwaatu ma. mu la àggale sa deux ans bi. waaw a génn bouse yi. teel a génn ba pare nekk foofu di këti këti tamit ba pare seen ceeb bi niiru chaque jour ceebu jën booy ceeb du am jën booy ceeb kese. booy yow moom ay lekk moo la sonal si. ah fii waaye mu ñëwee fii sama yaay dina ma toggal ceeb bi neex waaw. mais booy xoolal sa dem bi nag impacté na foofu ndax xam nga rek université day tàng rek yëngu gars yi mars grève fii nii mars fii. waaw ah, yow yàlla njiite grève foofu. ah la waaw. mais alhamdulilah moom gérer nañ ko. waaw ah, ok mais sinon nag naka koñ bii booy ah si koñ bi laa nekk nii léegi ak nii laa dóoti koñ bi café ah bon ay si kafe gi waaw boo café Yunus affaire bi noonu dong la amul benn secret ci nit boo nekkee ndaw du question ni njàngi mi doxul rek ah, nga xoolee non non affaire bi daa am si looy basé wu njàngi mi doxul dama jóobi xool na sa teel balaa nga gën a noonu la da bu ko xeeb gëmal rek en tout cas rek am sa projet loo jaay bu ko lekk bu ko pasa pasi sa xale jigéen ñi denc ko nga yem see ba financer benn projet parce que jàng nga ba am si diplôme mun nga réaliser dara bul xaar état dara loolu dong la boo ko defee day baax. jamono ji metti na sa waay gis nga temps yi maa ngi fi temps yi fu ñu laay dëkk bàyyi. man jaar naa sa kër fële sax fekkuma la fi. mu sa waay déggoo ma de fay ma weer fayuma la weer ma génn en tant que sama gayan nga sax war naa laa mën a tegal benn histoire boo xamante ni dund naa ko euh, dama am loo xamante سمعتني لما تضرب ساعد مو فايت دم خن سما بابو سما ياي بايما سما جوار دم سما راكم ديزا خو ما صحتي لو نيك سواي سما ريف يب موي جيل كات دوجل كو دوجل سما ياي gis ëllëg su ma fi jugee duñu jaaxle sa waay yàmbaa sax jaay naa ko dama daan dem ci sama xarit daan ko may ma tux ma jël takk boobu même mu dee deux cent francs dama ko ci am saa yi ma xañ sama bopp lépp waaye olof njaay nee na lii feeñ ci bët ak rek la ci xol. saay li may wax nii boo ma ko waxee. maam da may yokk gàcce rek. da ngay fen. da may déglu da ngay nag. ana yéen sama gars yi. waaw yow booy koñ faalewu dara. Hmm. booy koñ fii nekk booy booy fii nekk. yamba dañuy tux yamba dañuy jaay dorog dem di sari booy di këf tubaab bi man ma gën a metti tax. mooy chef de quartier bi muy def moom mooy maire bi. chef quartier lu muy def. waaw yow fii lay nekk topp suuf gi suuf gi. suuf gi mhm. yëpp dañuy jaay koñ bi moom boobu moo amatul ndax terrain. benn terrain la ñuy jël du ko jaay dix personnes. day dem tax leen saa ba quinze. mu nee affaire bi mujj fenn mujj fenn. yow li nga technique garaaw na de. bilaay benn terrain yu jaay ko ay personnes yu bëree bëri. personnes yu bëri laa waaw moom lañ ko jaay. non ça loolu illégal la. gis nga booy Younus. li ngay wax nii dafa nekk lu grave xaw ma xam ko xaw ma xamoo ko te benn affaire am na nag gis nga boo yooyu bu fekkee doo ñàkk engagé wu bay topp ay blow fii di tux ak fii jaayamba ma loolu lu ma si fekk ñun nag au moins am nañ benn xam-xam bi jàng nañ bi université koñ bi ñun ñoo koy xeexal suñu bopp maire buñ si buñ ko lijjantiwul wala seen kàcc lijjantiwu ko ñun ñoo koy lijjanti ba sens bi ma nekkee ci mbedd toogal maa la tooñ man yaa maa la jaay kër déglu rek ñu waxtaan maa la jaay kër ñu dem tribunal ma ànd ak monsieur le maire ak chef de quartier jaay la doole léegi nag kër gi jàkkaarloo kër. monsieur le ngeen ma doole noonu ngeen jaayee doole gay war yéen ko mën ci côté bu nekk yéen a ko ëpp xaalis. dama laa bëgg a dimbali. koy dimbali doo ko toroxal. muy dëkk ci néeg bu nekk. baal ma àq ma ox la saa waay kër gi jàkkaarloo kër chef de quartier non kër kër monsieur le maire fii tuddoo chef de quartier li jëntil cinq ma jox la ko. boo ma waxee ndax ma lekk. parce que boo ma gis nga bu ñu dajewaatee samay 4 million laa soxla. waaw d' accord ma dégg. dinaa la jox sa xaalis. sama eh, sama xaalis laa te loolu nag incha allahu rabi dana si def ay recherche ba am ay preuve yu fiable yoo xamante ni dina clair ay net yoo xam ne dinaa si mën a sukkandiku pour xeex loolu. dinaa ko def te dinaa si àndal képp koo xam te ni engagé nga si mission boobu noonu parce que lii nii ñu ñoo si mën a jug instant nag am nañ fet dinaa fi mën a am temps pour régler yéen richesse yi te loolu nag maa ngi la si soxla yow nga engagé wu ñu xeex loolu ak ñeneen nañ ñeew xam ne engagé wu parce que loolu suñ si jug comme ni nga waxee rek chef de quartier moomul fii ay maamam moo tax mu nekk fi rek monsieur le maire tamit ñun ñoo ko fal suñuy voix moo tax mu falu lii nag ñun ñoo si war a jug te incha allahu rabbi da dañ ciy taxaw lol loolu moom la amoon si lu may wax. waaw si wax si information lan man fu ma toog di jaay kafe Fofu ma information yi di fekk. ni fi chef de quartier bi nekkee ay maire bi sen secret yëpp la xam même booy yi même booy yi di jaay yàmbaay. booy yi ñu ngi kafe bàyyeetu

waaw soxna si ma yow tax xaame naa. fa nga ma xaame. boo xam naa xam naa la. yaa si jàmm. waaw kay. si nekk nag. nga dëgg kay borom café bu neex bi ñëpp di coow. ñëpp di coow kay Yunus café rek am gën a xam. bu baax la. moo. Adams. rafetaa yow. Άκελ να αποφωνώνω καφέ. Ah waaw. ñu dëgg mais ba mën na am am sa numéro. yow neex nga de tase nit ki nga ko jox di sa nii laa la bëgg a indi rek café parce que yow moom borom baax la quoi. waaw loolu sax dina ma def. ah sama bopp pare. d' accord loolu moo nekk sama numéro waxtaan après ñu dégg. voilà chef de quartier. chef